ñu daal beaucoup bokk notamment le gabonais bi nga xam Denis Bouanga moom bokk na ci onze bi pendant ça également Cristiano Ronaldo mais oui ñu ngi wéy di inspiré joueur yu bëri li <clears throat> nga xam ne mooy ci àdduna wërngal notamment qui nga xam donc euh, kii di Nicolas Jackson ñoom Garnacho ñoom Rodrigo entre autres ils sont toujours inspirés par ki donc Cristiano Ronaldo James également ki nga Arteta gis ngeen ko tey dafa yaali ki nga donc Martin Odegaard ci entraînement yi ba pare moom mi sax da doon def <laughs> célébration bu Cristiano Ronaldo également Michael

ne wa Real ni ngi ci ñu ci gestu bu baax a baax bu ko di du côté de la Casablanca qui remet également aussi mooy donc Jamal Musiala moom nak tay entraîneur na ak équipe Bayern mais fanweeri similaire rek la entraîné trente kessel kese la entraîné laata muy dellu moom kese di wéyal tàggatooma donc ki nga xam moy donc euh, Jamal Musiala jëmeen aussi ki nga moy donc Denzel Dumfries mom nak euh, match contre Benfica bi ñuy wax ni mom dafa am euh, li moy donc ab problème musculaire la daal di am motax nak japp nañ rek mom titularisation mom dal dina xawa tagatembe lolou ak Bola équipe bi nga donc Inter de Milan Dumfries bi nga xamné momit mi ngi wax prolongation contrat li nak moy donc affiche 5 cinquième journée bu Ligue des champions Lazio Celtic London Shakhtar Antwerp Paris Saint-Germain Newcastle Milan AC Dortmund Barcelone Porto Feyenoord Nord, Atlético Madrid Manchester City Leipzig Young Boys de Berne ak également Étoile Rouge de Belgrade pendant ce temps Joao Félix moom nag mi ngi daal di eh, soññ bu baax a baax a baax li nga xam ne nag mooy ay naataango mooy àndandoom du côté du FC Barcelone pour ñu wane nag xar kanam gu daal di yemb gu gën a rafet gu gën a jekkandi li nga xam ne jamono ji mooy

Ancelotti dal dal Dani Carvajal daal di wax ki nak également du Mason Greenwood Ganabin bi nga xamé nak dafa am du côté de l'Angleterre Manchester dal koy jël ko du côté de Getafe fi ni club yu bari ah, ñu ngi ci gerso du ngi yu tam du côté de l'Angleterre ak de l'Espagne pour d'aller koy indi ah, ki nga xam donc qui di euh, donc le joueur la pépite de Manchester <coughs> United pendant ce temps Nampalis Mendy joxe na ay nouvelle am donc moom it nee jamono ji daal ba mu demee euh, foofu noonu euh, lance jamono ji mom gaañ gaañ nee na permettre na ko mu di faju bo wéré wéré wéré et actuellement nak mom lim mu bëgg rek moy enchaîner li nga xamné ne nag donc match yi wane boppam baax a baax a baax Mendy le joueur donc emblématique de l'équipe nationale du euh, Sénégal nga xamné nak mom gaay yi donc il est un des hommes forts à Aliou et que ba mu ñëwee lance ba également il s'est imposé gis ngeen ko donc mu téggu teg ci li nga xam ne nag mooy donc ñëw jël place kii di Andy Diouf et tout donc Nampalys Mendy nekk ci dynamique bu baax a a baax di def yi fu gaynde dëggantaan kon duñ def lu dul rek di ko ci encouragé pendant temps nag gars ki nga xam ne nag moom daal dafa am jiixi jaaxa jëm ci li xam ne mooy équipe bu Tottenham bi nga xam ne nag gars fi ne nii ah, nag ba benn juróom ba juróom ah, place bi ah, moom nag ñàkkaat na beneen soo boo xam ne nag moom boomu reprendre yàggul mais dafa waa gaañu gaañu boo xam nag jàpp nañ ne ñaari weer lay toog donc moom daal weeru février bi jëm incha allah rabi la war a daal di fi ne nag li ki xam ne Bentancur rek parce que

ak li nga xamné nak moy donc euh équipe bi ni nii di ñëw donc Pape Matar donc bi nga xamné fini fi mu ne Postecoglou daal day mu wér mom semaine bi la war defal yeneen test pour ñu xol dañ koy wax na ko mën na euh, tàmbalaale wat football wala boog day toogaat mais dal mom nek na joueur boo xam ne fi mu ne nii daal euh, Postecoglou moom daal am ci mom Pape Matar ak Bissouma di former le milieu euh, donc de terrain de Tottenham à match bi nak contre ñi nga donc Manchester City nek match bu déterminant motax nak on espère que dina ko mëna féké guys c'est toujours un plaisir de vous servir hein wéy leen de like wéy leen di abonné on avance ensemble dans la magie des sports Sport TV la Baba Show su baaxee si yéen la su bonee suñu la jaa ngeen jëf